رمضان شهر رمضان jërëjëf Oustaz Babacar Niang ñu ngi lay nuyu di nuyu waa plateau Ramadaniyat wabil axas Oustaz Ousmane Ndiaye ak mboolem ñuy suivre Ramadaniyat ah, di ñaan yàlla yal na yàlla boole ñu ngërëmam te nangul ñu suñu koor Oustaz tey eh, ñu avancé tuuti wan la wan ñi nga xam ni ñoo jàkkaarlook ñun njariñ gi eh, njariñ gi eh, beqi am ci dunduñu daara beqi mooy bind alquran bind alquran boo daan beqi ba àggal rek yow dañ lay wax ñu ne ah léegi bind nga kaamil léegi koo xam ni dana beqi benn yoon ñi ñaar yoon ñii ñetti yoon def ko ay yoon yoon bon ñetti yoon soo ko defee mel na nga bind nga ñetti kaamil am na benn anecdote moo lay nettali Oustaz Babacar di ko li ñu jàkkaarloog man mo dafa am benn mag bu yéex dem daara ndax yéex dem daara du gàcca ndeysaan ba mu demee ba mu demee def yitte euh, moo ko tari moo ko alquran ba commencé beqi ndeysaan fekk ma nga fekk doom doomam ci daara euh, doom ji nag di xool mbind mi avant sëriñ bi di ko di ko toppal waaye mag mi mi ngi bindee ni al العمد لله ال العمد لله رب الح حالمينا حالمين nii la ko bindee moom mag mi nii la bindee al alhamdu lillahi rabbil xaalamiina nii la ko bindee ndeysaan ah doom ji daal ni ay waay waay waay alhamdu yi njomboor xaalamiina yi wéttéer bàyyi dal na beqi dégg nga ko muxaddam alhamdu yi njomboor aalamiina yu wéetéer bàyyi daal na beqi loolu lu muy signifier ku koy ki koy tontu na ko def ci commentaire yi insha allahu taala bu subaa ak ñu ñëwaat ci alhamduy njomboor aalamiina yu wéetéer alhamduy njomboor aalamiina yu wéetéer njomboor waxoon naa ni mooy ay ndégal wala mooy mooy ay nun ah wéetéer mooy xablonk waxaat ko encore une fois wéetéer mooy xablonku mooy xaa un wéetéer wéetéer wéetéer wéetéer nii la ko maa ngi doon tuddee bii am na ñu ko tuddee xaadam xaadam dellu ki xay xay xablonku gu bii xablonku waaye ci jargon wu wàññikati alquran yi ñoom seen lettre ñu ngi ko tuddee wéetéer léegi doom ji li mu avant baay bi dem ci sëriñ ba mu toppal ko dafa ne ay waay waay waay waay al alhamdu yu njomboor alhamdu yu njomboor aalam yi nay wéttéer wuy bàyyi daal na beqi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa